kii doyati na waar mbokki internet yi àndal ci seen rubrique faits yi dañuy dem ba tirbinaal bu Dakar waa ji day ab millionnaire la bëggoon a doon mu daje benn sëriñ ci mbedd dakaar wi sëriñ bi daal di koy euh, tegal loo xam ni waa ji da koo gëm ci saase ngir mu mën a doon millionnaire ba tax na xaalis bu bare bare bari la daldi di vider compte bancaire frère daal di koy jox sëriñ bi ngir mu mën a doon millionnaire ñetti million moom la waa ji wuyoo ci turu a Sissoko daal di jox sëriñ bi di wuyoo ci turu o Cissé moom nag euh, jeune boobu ay compte bancaire u frère am la daal yulli lépp ay prêt ngir nag mën a mottali xaalis bi ba jox ko sëriñ bi nga xam ne day yëngu ci wàllum tariyaax bi la sëriñ nag ba mu ko roñee daf ko ni daal ni ko dinaa la def millionaire boo xam ne àdduna bépp lay coow waaye loo am day wéy di barkeel waa ji dem ba ci biir xam ne sëriñ bi ay martu la ko doon dóor mu daal koy piéger moom magam ba jàppalu ko ñu teg ko loxo jiital yóbbu ci yoon ba nañ ko àttee tribunal mbokk yi fee yaa ngi noonu ay ca ñu nittali ko Asi Soxo li ko dal xamuñu ak gént la xamuñu ak tayeefu boppam ndax nag moom sëriñ bi di wuyee ci turu O la amal jafe-jafe dafa jàppoon ni O dina suqali yaakaaram ba waa ji nekk ab millionaire ci kaw loolu mbokk yi li naan marchand d'illusion maanaam koo xam ne day wane ni mën naa mën naa di ko jaay askan wi boo duggee néegam mu rimale koy kuure ki gën ay butéel xooj ndoxi 2004 ndoxi 2006 xooj ndoxi 2020 daal di wut ci ngeer mi wool ba mu wow nga dëbb mu mokk wut am mbant mbaare wut am ndeger mende daal weer xeeti ñax yooyu ban wow ci nawetub daaw def koy sunguf teg diri ñetti dara wékk def kaala gu yaa diri ay lege teg riimale riimale riimale riimale riimale ba ku dugg sa néeg rek danaan ëy waa jàngi loolu la nasaraan naan marchand d'illusion moom marchand d'illusion bi di sëriñ bi di wuyeeti turu O Cissé ñetti million ci sunu xaalis moom lañ jublan waa jile waa ji compte bancaire bu mu xam vidé na ko bu mu dencoon vidé na ko vidé ay compte bancaire am ba mu leer ko ni moom yoratul dara mu dem def ay prêt def ay leb ci biir ab fameem ku mu xam lebal ma nangam ci xaalis ku mu xam lebal ma nangam ci xaalis ñooñu xamuñu li xew pour ñoom waa ji day tabax wala waa ji day waajal ab tukki wala waa day def lu am farata ndax façon bi muy lebee te moom bariwul luñ koy xamee ci caaxaan li ëpp ci waa kër gi danoo jàpp ni kii kat xaalis si muy leb ah bu mbir mi sottee kat mën naa jur njariñ ba juraale leen ñoom njariñ loo xam ni ñoom dañ koy gis ndekete yoo waa ji sëriñ bala dajal ca mbeddi ndakaaru ya xamanteeg moom daal di dugg ci lu mu xamut mbokki internet yi bi loolu amee waa ji def ay prem daal di jël lépp yóbbul charlatan bi charlatan bi xool xaalis bi doyu ko mu ni ko faaw nga dolliwaat daal di tegal waa ji pression ni ko faaw nga dolliwaat ndax li may liggéey guddi gi man maa ko xam jinne yi ma yor wax ji may wax ak ñoom essence yi yombul te lu ma leen ñaan du échec kon dama bëgg nga yokkaat sa loxo waa ji gën a ne ci pression fu mu xam mu daw fa di wut di wutub xaalis di wutub xaalis dama dama dem ba dencatul dara dama dama dem ba ñenn ci ay famem sax dafa dem ba def leen a amel bor yu bari ci loolu mu dugg ci lu toll ci ay weer mu nekk ci lijjanti xaalis di ko sutti sëriñ bi ba débat d'audience jeexee mbokk yi ci tribunal ba faaw ñu daw fa mën a ñëwaat la débat d'audience wone mooy waa ji mi ngi xamanteeg sëriñ bi ci mbeddi kolobaan yi ñuy dox rek ba daje bi ñu dajee sëriñ bi apporté ko xam nga ñoom seeni kàddu wax wax bu rëy wax ju yaa ju diis nga topp leen gëm leen ñu mëdd la ci ay wax waa ji daal di joxe loxo sëriñ bi nag daal di koy ñaanal ni ko di nga am wér-gi-yaram waaye di nga am alal joo xam ni ñépp ci xaj xam nga seen prédication yooyu ñuy faral di joxe rek pour bëgg yow nga topp leen yow da nitu wërsëg nga macha allah sa vidéo bii gis naa ko di nga am lu ni gàññ loola la ko wax moom ma sans délusion bi gëmloo waa ji ni ko bu loolu paasee sax maa ngi jinne yoo xam ni xaalis ñoo ci gën a gaaw foo foo mën a ne ci àdduna bu nu jëflantee da ngay jékki malet bi daanu yow kay yaay ragal wala nga ñime ubbi ko jëfandikoo xaalis bi mais maletub xaalis moom des na nga danga ko am daal xaal alal juni gaañ yoo xam ni foo tollu rek yow dootoo am jafe-jafe waa ni ko ah sëriñ bi ni ko lii day moo fi nekk ñu daal di mel ni ku ma sa xamante fukki at taxaw na gën a waxtaan gën a waxtaan waa ji nag ni ko damaa bëgg nga seetal ma sama biir sëriñ bi ni ko nag ah loolu de moom dinaa ci sawar ba tey sëriñ bi wax ko prix de waa ji ni ruset ci poset bi ab junni jox ko génn junni joxe sëriñ bi daal di jël def première consultation bi daal di tas tase jal ay suufam jànjam defi trasam sóob def def tuuti euh, dóor marto bi mu defee loolu ba pare waa ji nag ni ah kon man dal naa ci man nag dama doon wërub sëriñ waaye kii mayam day kii de ponkal la kii de bu ma ko toppee moom bu subaa gaa yi dinañ ma dégg dinaa yor alal ju ni gàññ loolu mbokk yi feeñ na ci débat d'audience yi moom sëriñ bi mu daldi defar nag ay téere ak ay biteel yi mu def ay saafara pour waa ji raggoo ko maanaam sangoo ko bi loolu amee waa ji daal di jël butéel yi jël si ko ci ci ci makkaanu sëriñ bi sëriñu tariyaax bi waaw sëriñu tariyaax bi tubaab naan ko temps bi mu ñëwee waa ji ba mu raggoo ndox ya ca la tàggoog sagoom ca la sagoom lii la daal di expliquer enquête kat yi sëriñ bi nag ca la ko laajee benn million mu daal di koy jébbal mu ne ko nag naa la def millionnaire mu koy laajaati koppar di ko laajaati koppar ba mu toll ci ñetti million waa ji dem ba yoratul benn dërëm compte bancaire am yépp vide mu dem ci freeram bu ñuy wax a a Sissoko ba mu demee ca freer ba daa xam xamle daal ni moom am na ku koy teg pression nangam nangam expliqué frère bi partie civile bi mbokk yi ñoom la cay seen cër mooy waa ji moom doy na waar waa ji aussi ni moom amut lu mu cay wax agut kon ñu déglu ki nga xam ni moom lañu ñu sëriñtu ba yóbbu xaalisam moom nee na waa ji da koo xam ni aveuglement nee na lim ko laaj lépp nag jox na ko lii la nit li ci enquête kat yi nee na xaalis si ko sëriñ bi doon laaj waa ji jox na ko waaye da ko doon yóbbu ci barab yoo xam ne barab yu yéeme la di def ay incantation maanaam di def ay ay ay pexe ay boxaama a a sóob waa ji nee na ma jaaxle loolu ndax mbir yi may woon day mel ni beneen monde laa ne nee bi ma demee nag ba toll foofu ci moom ci la nag commencé lum ma laaj ma jox ko nee na ma nag bi ma demee ba sës laa ko wax sama mag ni ko ah man de am naa benn sëriñ bu ma dajaloon ci mbeddi kolobaan yi ñu waxtaan ma jox ko junni mu seetal ma mu ne ma yow de di nga am wér-gi-yaram ci sa dund di nga gudd fan waaye xaalis di nga ko bari la loolu di nga ko doyloo ba ku la gis mën na la sax ne kii moom fan la jële lii te loolu lépp ci samay ñaan lay jóge nee na bi nu waxtaanee ma jox ko un million mu jox ma ay saafara ma tàmbalee sangu ma videowaat yeneen presque deux million ñetti million daanaka jox naa ko ko waaye bi ma demee ba sama xel dikkaat xam naa ni sëriñ bii daf ma doon nax lu mu lekk lay wut mag ji ni ko ah mu ne ko waaw mu ne ko kon sax yow li nga ma doon lebat yooyu yëpp foofu la jëm mu ne ko waaw sama compte yëpp jeex na mag ji ni ko léegi benn solution moo fi am nañ ko piéger jàppalu ko yóbbu ko ci yoon ñu tëj ko mu fay ñu suñ xaalis léegi dañ koy piéger ngeen joxante rendez-vous garage u Kër Massar waa ji ni ko d'accord waa ji woo sëriñ bi nuyu yoog moom jàmm sante ni ko man de dama bëggoon ñu daje garage Kër Massar ndax benn ordinateur daal laa fi dese xaalis yoratuma ci dara loo xam ne mën naa la ko jox buñ fa dajee daal ordinateur bi moom cher na cher goo xam ni foo ko yóbbu boo ko jaayee mën nga ci am dara waa ji sëriñ bi gëm loolu solo dàllam ànd ak waa ji ñu daje bi ñu ñëwee nag fekk waa ji informé na booy takku der yi ñu daal di ñëw mbaal sëriñ bi jàpp ba nu ko jàppee def ko mandat sous dépôt 5 avril lañ koy topp mooy escroquerie et charlatanisme njublëng ba pare ni dangay gisaane ci kanamu tribunal flagrant délit bu Dakar ajjuma ji ñu weesu biñ ko àttee waa ji daa weddi leen koy wax yépp moom sëriñ bi nee na woy juróom wu góor pàppam sëriñ bu mag la woon laata muy génn àdduna da ko jox xeetu xam-xam yi mu doon jëflante nit ñi yépp nee na boobu ba léegi nag mi ngi ciy faj ay aajoy doomu aadama yu bari ñii dañuy feebar ñi nekk ci ay jafe-jafe lii la sëriñ bi wax ci ay waxam yooyu nag parti civile bi ni ñoom waa ji dafa euh, dafa tawatoon amoon ay bopp yu mitti biir yi mitti bëggoon a faju nee na mu daal di koy jox lu toll ci benn million nga xaaj waaye xaalis boobu mu joxe de ne da ce jënd la nga xam ni moo di ay ay jur jënd ca piti cola ak yeneen ak yeneen génn ci ay sarax lii daal la défendre layal boppam waaye nag wax jooju convaincre tribunal ndax ba tribunal xoolee procureur dani fee yi ñuy wax de fee yi jubla waa ji kon liñ koy ji ñëpp mooma juróom benn weeri kaso lañ ko tëj waaye ba ñu délibéré tribunal jàppe na ni kii coupable la ba tax na ñetti weeri kaso lañ ko tëj waaye tribunal am na lu mu denceel intérêt civil yi maanaam man naa ne ndàmpaay kon mbokk yi fee yaa ngi noonu mu ne fooy bu doy waar li ci gën a yéeme mooy dajeeg nit rekk ci mbedd kolobaan yi ay ci yow la man la dama am jafe-jafe yow bu yow tey ji yow am na loo xam ni sax xel moo koy xalaat parce que bu fekkoon ne yow tey sëriñ bi mën naa def kenn millionaire boppam la koy def toog di lekk ay ginaaram di dawal ay oto yu cher te du am jafe-jafe waaye nag nit ñi ñoo du ànd ak seen conscience bëgg ji tey jii ci ajjuma ji suba samedi ñu daal di dem daal di deqi ji lin wala ñu daal di koy jariñoo alors que àdduna du noonu àdduna lépp patience la ak calcul xaalis da koy lijjanti da koy ñàkk waaye doo ko lijjanti sëriñ bi naan la tey mën naa laa defaral kiis gi wala biteel bi jàmb bu manoon loolu du du ñëw ndakaaru ba ngeen di daje kolobaan ba nga yëkkati si junni boo xam ne xajoon na ci ceebub ginaar junni boo xam ne xajoon na ci reer bu baax nga jox ko ko ci daje rek dox daje xamoo fu mu dëkk ci Dakar xamula nga ñemee dem ba dugg ko ba muy def ay càngat di la joxe ki téere wëlbatiku détourner sa conscience di la encaisser ba nga génn fa xaalis bu bari damay jàpp ni kon nit ñi seen conscience dañ koo fàtte waaye àndatunoog seen xel ndax bëgg nañ kut ko rek tey ñu ne ay millionnaire nekk ay milliardaire di doxantoo oto nit ñi topp leen yooyu lañu bëgg di show malheureusement fa mu daanu gis nga fi mu mujje mu doyati waar loolu mbokk yi kon duñ ci sori rek dañuy wax ngeen ni abonné partage vidéo yi saa suñu ñëwee man di leen faram fàccee li gën a fës ci xabaaru faits yi ëttub faits yi yokk leen abonné yi di ko partager ñu ngi leen jaajëfal di leen ñaanal këndal